dal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën na fës ci bopp xabaar yi nag eh, dañ koy doo rek entretien bi nga xamante ne rek kii di Macky Sall doon na ko amal foofa ca France 24 moom nag la mu daal di def rek dafa accuser kii di président opposant bi di Ousmane sunko ginnaaw rek bi mu ne dafa laaleek li nga xamante ne nag moom mooy ab mouvement islamique maanaam daal terroriste bu mag la waral nag ki nga xamante ne nag moom mooy avocam bi di woo ci turu maître Patrick Kabou daal di def ab réaction moom nag ko daal di jaarale fi nga xamante ne nag moom mooy ci page Twitter am la mu daal ne rek mooy mbir mu nu mel kii di Macky Sall kàddu yi nga xamante ne nag yëkkati na ko ci boobu lay entretien euh, kàddu gàcce dëgg la ndaxte nag bu mu juddoo ba tey nag mi ngi soog a dégg thèse bu nu ginnaaw bu mu waxee ne rek li nga xamante ne nag moom mooy liberté fondamentale boo xamante ne rek dafa ku ko def ku nekk rek ak terroriste nga ba noppi rek jaarale ko nag ci réewu Afrique ñaareel bi nag li nga xamante ne nag moom mooy àq ak sañ-sañ li nga xamante ne rek religion am na na ko ci wàllum guerre ak tradition Afrique noire moom nag la mu daal di xam ne moom maître Kabou moo di ne bu fekkee kii di Ousmane Sonko nag moom islamiste la maanaam ab terroriste la kon moom nag christianisme la mbir mu nu mel rek dafay wane na rek kii di maître Kabou nag jàppal gi nga xamante ne rek mu ngi koy jàppale usman Sonko waaye nag ma ngay ŋàññi bu baax kàddu yi nga xamante ne rek kii di njiital réew mi Macky Sall daal di na koy wax moom nag la mu dal di xam ne rek moo di yàgg na waxtaan ak. bu baax kii di Ousmane Sonko di def sab ak xayma jëmale ko nag ci diine ji maanaam wàllum li nga xamante ne moom mooy islaam ak christianisme wante nag mbir mu nu mel lam ca jàngee du lenn kase lenn rek la ci jàngee moo di tolérance jàmm ak séddoo moom nag la mu daal di xam ne rek mooy Sénégal dund ci jàmm ak salaam la am wante nag gàcce dëgg la rek bu demee ba président Macky Sall nag koo xamante ne rek moom lañ dénk réew mi di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne rek kàddu yu doy waar la wala wax ci sujet boo xamante ne rek sa gémmiñ mbir mu nu mel nekk na lu grave lool ba tax na nag mu yëkkati ay kàddu nag di ko naqarlu ba noppi rek di méttilu bu baax nag image Sénégal bi nga xamante ne rek moom la njiital réew mi Macky Sall daal di koy jël eh, def ko ba noppi rek di ci wax ay wax yoo xamante ne rek daanaka dara nekku ci dëgg ak a sosalaate du samay kàddu mais kii di Patrick Kabou moom moo ko dal di xamle du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar.